ministre boo xamante ni yow yaa ngi toog nga ne pour la culture. Mhm. aujourd'hui tabaab baax na lépp li ñuy wax yëpp mais man ren atum ren kan moo ma gën a investir dans le hip hop. Mhm. amul kenn ku ko ñemee na ñëw ma gën a li mu investir ci xaalis ci milieu hip hop cette année ci. Mhm. te dama koy wax parce que daaw ma wax mais boo waxul gars yi dañuy takk rajo yi rek mel ne ñoom ñooy def wala ñoom ñooy li ñooy ils ont rien fait li ñu def risque yi ñu def ak li ñu def personne ne l'a fait. et ñoom mun nañ génne ñun ay preuve yu palpable wane ni lii ñun ñoo ko teg année bi te ñëpp gis ko. donc mm-hmm. kon tey jii bu loolu dara amee ñoom ñëpp soutenir bi ñu war a def ku neex nga soutenir ku soutenirul yaa xam. Mm-hmm. mais au moins ministre boobu ñu wax ko dëgg parce que ñun on a dañu dem ver ñoom man damay dem vers ñoom li may wax chaque jour nit dof ni ma gars yi di wooyee j'en profite kenn woo la woy waxal nit dof ni muy communiquer wala mu bàyyi la ngay communiquer nit dof c'est un artiste engagé. Mm-hmm. du man maa koy wax avant ça Nitdoff était comme ça depuis 2007. et jusqu'à présent du man maa koy wax ni muy communiquer benn Mollah Morgun nga wooma di ma booleeg moom da ngay yàq say wax parce que ni mu mel ak ni muy def du man maa koy tere mu def ko. Hmm. tu vois man na am naa sama ligne de conduite am na sama style de communication bu wax jotee li ma war a wax dinaa génn wax ko ni ma ko war a waxee ñoom bu ñu waxee neneen ni ñu war a waxee c'est leur droit le plus absolu parce que c'est des artistes engagés. Hmm. mais côté professionnel fu ñu ci war a jaar. pour am li ñu war a am dañ koy jaar te ñaanuñu si yalwaanuñu si saraxuwuñu si suñuy droit la fi ñu war a jaar la ñuy jaar li ñu war a def la ñuy def suba bu ma leen soxlawaatee muy Aliou wala dara bu ma jëlee baax na parce que essayé woon naa buñ ma jëlee baax na buñ ma jëlul baax na buñ mais l' essentiel droit yi ki ma ko war a jaaree laa koy jaaree bu dul ministre am na ministre yoo xam ne yow xam nga ma baax xam nga yow tamit am na ministre yoo xam ne buñ nekkul woon ministre aujourd'hui buñ tasantee si mbedd bi amaana ñun duñ leen nuyu. billaay wallaay. liñ def ci réew mi wala liñ teg ci réew mi amaana ñoom taxawaay bi yàlla mooy maye ñoom la yàlla def aujourd'hui ñu nekk ministre bëgguñu ndamu mais muy yeew muy mën a muy nawloowuñ leen sax mënuñu ñu dàq ni ñoo ñu ëpp àdduna déedéet mënuñu dàq ni ñoom ñoo ñu gën a wër àdduna mais ñoom la yàlla def njiit njiit boobu ñu ñu ko yàlla def ñoom dañoo war a xam ne ñun ñëwuñu hmm. envers ñoom pour yalwaan hmm. parce que bu dul xaalis seen salaire li ñuy am ñun mën nañ am lu ko ëpp par weer hmm. bu dee leneen mën nañ am lu ko ëpp xanaa mu am leneen lu mu fa demee loolu suñu yoon nekk si peut-être ñoom ak population bi la après. Mm-hmm. mais quant à loolu nag dafay laaj li ñuy impacté ci réew. ñoom mm-hmm. impacté wuñ ko si du keneen ku ko ci impacté. donc ñun on est appelé yow. Mm-hmm. nëbbu ma ko lépp lu ko ciy def dossier en candidature wala dara dama koy def nit daf mës gis fu fu may déposé fu may déposé wallaay lazim. a xam jour biñ ma fayee ak biñ ma fayu. barki Cheikhul Khadim rek laa gëm yoo xam nga lool waaw gis sa dossier de dépôt. mosuma koo musul xam ba xam xaalis dugg na sama compte wala dugg si musul xam et il ne saura pas parce que il a pas besoin et que sequma ak moom loolu. Hmm. li ma seq ak moom mooy dans le cadre professionnel et en même temps dans business yoo xamante ni on est appelé à le faire parce que c'est un boo xam ne moom laa mujjee liggéeyal. Hmm. ñuy wax di wax ci suuf di wax ci kaw li ma def ak ñoom ak li ma leen defal xaaj bi defal moo ko di def. Hmm. di def pour te yow tu as été aujourd'hui pour mën a wax loolu defe naa ni lu bëri sa kanam la xewee. maag yow passé nañ ko passé nañ ay nuyu passé nañ lu nekk gis nga li ma def avant nit dof li ma def avant nit dof mu xëy na aujourd'hui nit dof rappeur la am bruit boo xamante ne nii lu mu def coow li day bëri mais ñoom nañ jëm na assumé wane ni nit dof li ma def ci yeneen artistes yi dafa ko ci moom hmm. donc aujourd'hui bu ñu ko jëkk jël sama image collé ko ak image bi daf ni voilà mënatuñ ko bañ sama waaye la sama lépp la mais bañ ñu taxaw ni ñu ñëw taxaw ni voilà saa boobu nit dof nit dof mooy saa moo def lii moo def lee loolu parce que après ça ñi ma doon defal ak ñi ma def si ñoom léegi ñoom bu boobaa tamit man ñoom benn aujourd'hui les événements que je dois faire après c'est li dof aussi. donc moo tax lan moo tax chaque jour bu amee ay coow rek gars yi ñoom politique yi dañuy génn naan ay defar nañ ko fii ay nit d'oeuvre recevoir nañ ko palais jox ko 3 millions recevoir nañ ministère yooyu noonu est-ce que mënuñu ko def noo xam ne maanaam mucc ci jaar mucc ci. mais Mor. Mm. Mm. on m'a jamais reçu ci palais on m'a jamais reçu ci ministère je dirais pas que du ma ko def mais on l'a jamais fait li may def nee la le dossier à candidature la toog sama kër ñu def dossier à candidature ci net bi ma déposer un très bon projet bind ko comme ni ma ko war a bindee. Mm. dugal bu génnee comme tout le monde ñu génn te ñëpp gis nañ ni année yi passé bi ñuy wax ni jox nañ ma ko bokk naa ci ñi si gën a mag le projet man rek naa ci def sax boo. pourtant bokk yaa ngi comprendre. waaw naa ci ñu gën a tuutal li ñu jox. te mm. pourtant bokk naa ci projet bi gën a mag année bii ñuy wax ne. 5 mm. millions yooyu ñuy wax il faut les gens xam ne 5 millions yooyu je l'ai pas reçu et 5 millions yooyu tournée boobu jeexal nañ ko depuis mois de juin. Mm-hmm. ñu def ci chaque date chaque date budget bi dépassé na plus de presque 30 millions chaque date laa wax tab bi ñu def. ko gis nañ dañoo déplacé ay artistes dañ leen a logé dañ leen a nourri jëndale matériel bi de Dakar jusqu'à là-bas def suñuy communication donc benn cinq ci plus de quatre dates wala cinq dates ngay wax xooxul cinq millions loolu teg pour man aujourd'hui chauffeur toll na foo xam bañ ko ñu bëgg ko c'est l'état qui devait porter le projet au lieu que dem di jéem a xool leneen luñ mën a def loolu rafetul te li ñu dal nii ñun cette année ci man lu mu mënti nekk lu ci wax ça m'engage et ça engage tout le monde. Mm. il faut l'avouer il faut que yi assumer ko jusqu'au bout. mooy que mm. mm-hmm. dafa ñaaw ko dafa ñaaw dafa ñaaw et que xaalis bi ñu ci perte. Ah, mais waaw mais mais ça lu ma lay tëjee mooy déjà yow nu gisee gars yi ak tamit man nan laay ref man tam di lekk ci million yooyu parce que tamit bëgg naa ci nag sincèrement boobu ba léegi. yow baal ba lekk bu ma lekkee rek. <laughs> bindal ma projet rek man man fonds yi dafa cee bëgg a lekk rek. sonn naa trop. non en fait en fait xam la ñu war a hmm. yi man je je demande à ce que xam nga ñu ngi naan yokk nañ ko yokkuñu ko. Hmm. balaa ñu koy yokk man li ma bëgg mooy nañ def audit audit fonds yi nañ ko def. Hmm. man bu dee am naa suggestion bi may joxe. audit ba mu commencé ba tey. ñi si ci financé nañ leen topp kenn par kenn ku si nekk ki ci def ak ki ci deful. ak yi jaar c'est trop facile. fond bi liñ koy joxee ak niñ koy niñ koy joxee jekki-jekki joxe benn rapport xamuñu def nga wala defoo wala ñii ñu ne dañ leen tey jii nga ne sama studio laay structuré déwén nga defaat ni sama studio laay structuré studio yoo xam ne c'est privé amul benn impact ci culture urbaine bi parce que tey jii kooku bépp rappeur artiste bu fa dugg dangay fay prix normal amul subvention amul benn réduction bu ñu lay defal kon kooku business u nit ki nga nekk di avancé nañ ko audit xool ñi nga xam ne financé nañ leen xaalis bi ba xam dugal nañ ko fañ ko war a dugal bu boobaa dinañ comprendre que ñun 5 millions boobu ñuy wax noonu bis bu ko jotee fekk na liñ ci waroon dépensé dépensé nañ lu mat boo ko multiplié par 20 wala par 40. bu hmm. boobaa ñu audité xool dinañ gis ñoo xam ne amaana xëy na dépensé wuñ ko si donc man loolu laa amoon pour man. li am na solo aw ma ci solo macha allah macha allah big up big up Cha Thiomba. jaajëf jaajëf temps yi li ñu may booleeg yow nag bëri na. man damay toj man di rajax tël. a leen ma ni kooku c'est fou rek de leen ah, ma <laughs> coupé <laughs> bu bu ñëwee di la boole rek nee na c'est fou wér. bon oh, man kay wax naa leen ko nee naa leen <laughs> yàlla wax da ngay wax li la waaw wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg seetaatee ci live ko neex lay wax. solal seen bopp rek seetaat leen ko man damaa bëgg a ñëw Canada mais damaa ragal di ñëw wàññeekuwaat taxaw aéroport ñu ne yaa ngi Mollah lu leen bokk. dégg nga xaar nga ñibbisi ma doog a ñëw foofu waaw. mais jaaw yàq kan nga. yeah mais that's cool that's cool man I loolu mooy lii mooy débat mais nag man tamit man tam booy Cha war nga ma bindal ci projet de man milliard laa dégg de un milliard président bi financé un milliard te man mu juddoo ba léegi lekk gu un franc ay man tamit man mii tam ñàkk man maa ngi bëgg a ñàkk fayda de non xaaral man tam ma toog yee daal sax man ku ñàkk man maa ngi bëgg a ñàkk fayda de gars yëpp nee nañ fonds yi ñoo ko moom suñu fonds la nañ ko lekk man ma toog nii rek di xulli nii ñi trois cent million la gars yi ne ko warax toog six cent millions gars yi ne ko warax toog léegi waa ji ne na un milliard te man kon waa ji douze ans yu mu fi nar a fekk gi fonds bi man duma ci lekk kon man daal fas <laughs> naruma lekk ci fonds bi nii douze ans ah xaaral mu ñëw man tam ñu may bindal projet man waaw man ñu may bindal projet quoi xaar ñu may bindal ma ñëw ñaan ñu may bindal projet parce que man mii tam war naa commencer di lekk di lekk ci fonds yi même cinq millions sax ma jël ko créer benn soirée soirée dansante. yee monsieur Biba. Mola maa ngi ziar. waaw delloo ziar di la màggal. maa ngi live de. yaa ngi live yaa ngi live yaa ngi live kii mooy Biba Arif. waaw damay ah ndax. moo lay bind naan la woo ma quoi. da nga yor numéro bi da nga yor numéro bi. <laughs> waaw oui ma. voilà. non tey moom da ngeen tàng. waaw aja. non du loolu. du loolu moo la yow xam nga quoi yow kañ lañ gëj a wax du sànq lañ gëj a wax sànq si Madiack. Hmm. dañuy waxtaan quoi dañuy waxtaatee dañuy waxtaan. dëgg la lii yëpp xewul ànd nañ ay tournée dem nañ ay Vélingara xam nga ay World Vision bi def nañ ay tournée def nañ affaire yu bëri on se connaît. Mhm. bi nga nekkee fii Paris on se connaît ah. waaw traîné un peu. on se connaît quoi xamante nañ tu vois. donc Sénégal xamante nañ ci musique bi xamante nañ fii xamante nañ balaa ngay dem bala fële right right. je me sens un peu parce que bi gars yi duggee gars yi ñu wax si ñi nga xam ne dañu fustigé rappeurs yi demoon pare. ok. man tu en fais partie et Euh, DJ Ala sax wax na ci benn parti moo bëggoon wax euh, nit dof wax na ci. Mhm. Ah. Mhm. xam nga ma leen di ziar ñu ñëpp ak Chaim ah, Rifou Rifou gisante nañ fi il y a trois quatre semaines ah. on a vraiment parlé waxtaan et tout on a fait des photos ak Chaim et tout. Mhm. donc euh, ñun suñu problème du nit c'est pas la personne. du personne Macky du personne rappeur yi on n'a pas de problème avec la personne. on a des problèmes avec des concepts parce que ñun suñu àdduna concept la. tu vois euh, ay idéaux ñun la ñuy fighting moom lañu ñu loolu moo ñu tëgg. ñu nekk ci ay dëkk yoo xam ne ay 17 millions d' habitants yàlla tànn ci ay nit yoo xam ne dafa ne ñii ñoom ñooy nekk ay bañkat ñii ñooy nekk ay waxkat ñii ñooy sol ay yëre jëngal ñëpp sol ay chemise ñii ñooy sol lii. Mhm. ñii ñooy dem di fecc ñii ñooy dem di lettu ñii ñooy dem di truc. ñu woowee leen leen les marginaux. les marginaux xam nga marginaux génne leen sax si société bi tey rappeur bu amee respect tey la rappeur ay temps rappeur booy dof yooyu la ñuy wax. Ah, dof yi waaw. man dem naa Sénégal di takk jabar ñu woo yaay ko ku nekk kii de rappeur lay ànd rappeur la nopp. ci yàlla. yaay ji bañ. yaay la kon tey la rap neex bro. Mm-hmm. tey sax la rap neex ba gars yi ay Mollah sama gaañ la wala kii sama gaañ la ba la internet am loolu am mais gars yi koy fayte ñëpp xamante nañ nag. Mm, te internet amul woon. Hmm? waaw malheureusement lu métti ci Sénégal mooy que boo nekkul waxkat. Hmm. gars yi duñ la faale ko hmm. boo nekkul ko xeebu gars yi la respecté ko boo nekkul cogg gars yi duñ la respecté ko boo nekkul sàcckat gars yi oto wala dirkat dóorkat gars yi duñ la respecté ko dëkk boobu la ñu yore. waaw Sénégal waaw noonu la mel. moo tax réew yëpp dem nañ Mollah wax ma ñaata réew ñoo des Sénégal à part gars yu dëgër bopp dëgg. yooyu billaahi réew yëpp dem nañ ak ñoom Iba. Hmm. ak ñoom allemand 23 to ak ñoom Coccis. Mhm. ak waa BMG ñoom Omzo. ak mhm. ñoom Manu. Mhm. ana gars yi ana booy Kaolack yooyu doon rap euh, Patricia Patricia booy kii yooyu di poète. xam ana ñoom mm, mm. Ameno Fils. Mm. xam nga réew yi ak ñoom Omzo OMG 4O. ak ñoom Rescapé. xam nga fu may sugee. doon na waar xam nga. Ah, moo en fait mun naa la ko limal mët nañ sans ah, dañu ay bañkat leen xool parce que am na ñoo xam ne talu ñu nekk foofu di xonjoomante ak di coggu ax ay truc ñoo ñoo dem en fait les ruelles ñoo dem bro mm-hmm. ña fa des mooy ñoo xam ne ñu dem parce que gas nañ foofu benn affaire ba pare xam nga may expliqué am na lu leen di représenté mënuñu dem ak ñoom maxi crazy mm. moom mi doon wax ay euh, volontaire volontaire pourtant dem na mm. parce que da dem ba benn sax nga gis réalité yi nii nga ñu teg ñamu mbaam nga xool ndax di nga lekk si ñamu mbaam bi wala doo ko lekk bro. Mm. nga ne lii du ko lekk. xam nga yaa ngi may dégg. maa dégg maa ngi dégg baax. Mm-hmm. ñu ngi déglu. dañ fa teg yàpp mbaam teg fa ay njamu mbaam teg fa ay day ñu ne la lekkal nga ne xiif naa ba bëgg a dee ko lekk. Mm-hmm. ñu ne la kay trenk nga ne du ma tranke. Mm-hmm. xam nga ñu xatal lépp tëj porte yëpp yàlla ubbil la ay porte bu ñu defee benn son boo defee sa son raw leen xamuñu luy barke. ku fa def dix ku fa def dix album ñu respecté le Diba benn aarit la def moom lañ ko respecté am na même respect que ñoom ba pare bu leen ko ëppul parce que def nañ yenn basses o xam ne du ko def. Hmm. il restera lui il mourira lui. Hmm. waruñu dem palais ci contexte actuel loolu lañ wax. Hmm. waxuñu buleen leen fa dem palais ñoo ko moom Macky Sall day dem keneen dafay ñëw locataire. c'est jusqu'on vit dans un pays où nit yi dañu nangoo sukk moo tax moo am benn buur. Hmm. ñun dañu nekk ci ay pays yoo xam ne te yooyu tubaab bi moo ko njëkk def suñu bopp yi ay subordonné. Hmm. loo war a jël tax da koy ñaan. man tukki naa def naa fii neuf pays fii nii tubaab yu bokkoowul. musuma gis président musuma gis peuple fii nii bu wax président may ma wala dimbali ñu. Hmm. dimbali ñu. musuma dégg man président wax fii ba benn citoyen français wax fii Mac Macron aide nous. Mm-hmm. da koy def. da koy def parce que xaalis boobu dañ ko répartir pour loolu loolu mooy état ñu dajale yëpp def ko ay institution def ko te ku nekk lu jox la li nga tubaab bi loolu la njëkk a xam si doomu aadama ba loolu la njëkk a réglé ci dëkkam mooy lan bu kenn soxla ba ñànki bu kenn ñàkk ba ñànki yow Mollah def nga France fii chômeur bi sax day am quatre cent néew ma bi chômeur bi day am xaaju salaire am non non ay bu fekkee deux mille lañ lay fay boo jëlee chômage nga am ay mille huit cent mille sept cent sa mm. chômage mm. mais bu dee liggéey defoo dara dañ lay fay xaalis quatre cent au mooy ay RSA sa affaire yooyu est ce que pour lan ñuy def loolu parce que dañuy bañ na ñànki tubaab boo fi daaneeloon sa portable léegi moom moo lay dab jox la parce que soxloo ko dañ ko teg ci condition yoo xam ne soxlawul. dëgg la. Sénégal sa propre papa sa propre yaay sa propre ki nga bokk ndey abaay moo lay duut. Hmm. parce que dañ ko def suñu xel dañ ko def suñu bopp koo gis yaakaar na da lay lekk wala da koy lekk. Hmm. xam nga lu ma expliqué ñu màggee ci yooyu buuxante rek fa am boo jël car rapide sax doo leen def benn benn ñëppay buuxante di xëccoo. <laughs> billaay man dem naa Hollande bii dem naa Hollande bi nii ma sama gars dem taxaw ñu dem fekk gars yi taxaw ñu def rang ñun xamuñu ñun ay parisiens la ci la ñu nekk di teel rek des fois ñu dem taxaw di war a dugg ñu gis rang bi ba fële rang bi mët na presque ay trente mètres ñu demoon ñu di reetaan suñu bopp dañ dem di pour ñëw dugg ci euh, bus bi. xam nga fu may bu baax ñun dañu jaxase suñu bopp bi ba yow boo gisee molaa yow bu la xoolee sax nga yaakaar ne que mola bi xool nii cat la dalay lekk. <laughs> waaw cat la wala làmmiñ la. billaay wallaay lu la dal nga jiñ ko ko. foofu lañ toll. Hmm. àdduna di dem nag xoolal affaire yi ubbeeku xel di ubbeeku. gars yi di tukki di gis yeneen. Hmm. nga ñëw gis tubaab bi dëkk bi set nga ne mais pour lan mu set parce que kayit yi dañ koy dajale parce que am na benn entreprise bu ñuy ubbi def transformation. mbuus bi nag doo ko fekk ci mbedd bi parce que dafa am transformation. Hmm. bidon bi nag dafa am transformation. xam nga li may bi nag dañ koy dem def fari pour def ko engrais waat. Mm-hmm. kon mënoo fi gis salté parce que dañ fa def ay entreprise yow wax ma ban président moo fa def ay société parce que dañ leen ko digal dañ leen ne xiifal leen seen dëkk bi parce que bu ñu comprendre bu ñu comprendre dootuñu leen moom mm-hmm. waa ji mbéjoon fii Macron da ci am droit dañ ko dem calmer rek un mois dañ ko génneewaat yow neew ma la mekk mbéj ndax ndaxte dafa am lu ko naqari dama neew neew ma la mbéj maki yow yow kenn benn planton wu gouvernement bi rek yow. boo ko mbéj boo ko boo ko boo ko poussé rek waxuma la euh, mbéj de boo ko poussé rek épaulé rek si kasa bu am na sama benn connaissance bu amoon problème ak port benn waaj waaj waajoo du port xaw ma stade xaw ma mm. la Sénégal looloo fa am en fait ñoo mm. ma la président nag waxtuma la président waaw mm. ah, loolu Sénégal xam naa sax gars yi xam naa gars yi nga xool waa bii baa moom sax est ce que xaar ñu xooloon ndax am na këyit est ce que mën nañ jaar est ce que mën nañ ko jëli est ce que dama leen bëgg a waxal ne man dama dee ba pare man dee naa balaa dee di ñëw waaw ah, loolu noonu ko moo fi may expliqué waaw ah, loolu ci ngay mën a dundee de man dee naa balaa dee di ñëw te bu ñuy xeex ñun ñëwuñu kaaw bu ñu nekk ñu nekk ñëwuñu kaaw hmm. te lépp daf ñu fekk Sénégal dañu bokkul ci waxkat yi hmm. ak yeex muusantukat yeex dof doflukat yi foofu hmm. am nañ lépp ba bu ñu gisee lii daf ñuy metti parce que Macky Sall instant bi international te jaruf fi dara ñëpp dañu wane lépp moo tax noonam bu gën a mag Macky Sall du jeunesse du leen noonam bu gën a mag réseaux sociaux yi la di ko xeexee gëmuñu ko xeex ay moom laa xeex ñeneen ñeneen ba xam ne mënu ci dara dafa doon récupérer image yi te image yi ci bokk ñii mu dajale ñii yóbbu leen pale ok xam nga fu may expliqué waaw tey yow mii di wax sax dafa dem ren aw sekk max moom dara lu le tut mais tey jii boo nekkul woon Mollah siiw ni temps yi ñëpp di la wax du la boole si ñi muy ci ténor yi déedéet du la ci boole déedéet c'est ça le sinon fii la ñuy toog naan Mollah dof la Mollah waxul dëgg Mollah truc ba nga wax lu am ci ne ah ndax pourtant dof bi tey wax na dëgg wala sénégalais noonu la mel. Mhm. waaw noonu la mel de. valoriser ku am valeur ku am xaalis teg wala oto bu rafet wala même sàccal yow dafa lu la neex yow demal tagatu nga dem yóbbu sa yaay màgg sa ndey moo liggéey loolu mooy le sénégalais. Mhm. dafa am benn fen boo xam dañ ci juddu màgg ci dañ ko war a dindi ba mu set wecc. Mhm. xam pour ñu mën a defar bu ñàkk ci Sonko ñëwoon diw loolu. mais mais mais mais mais wax nga dëgg de gis nga fen boobu nag pour pour dindi ko dañ ñu dina bëri ñu dee parce que déjà avant ñoo yegg ci président feebar bu ngay wax ci euh, feebaru population la en fait.